waaye ki demee noonu euh, war a mën a teg ay commission d'enquête ah ak ki demee noonu jàpp naa ne nag euh, débat boobu débat le débat au sein de l'hémicycle mhm. dafa nekk un débat boo xam ne dina tax sénégalais comme jamono vote mhm. budget bu daal bu daan am jibi léegi day romb nii gars yi duñ ko seen duñ ko sax xoromal. Mhm. seen yoon nekku si. mais marathon budgétaire gars yi sax affaire bi da leen doon soof. voilà waaw marathon budgétaire yi waaw. alors man léegi ba ay jamono gaa yi dañu doon seetaan. Mhm. parce que on on veut des députés. Mhm. Euh, euh, à la pur à fa la. waaw <laughs> on veut des députés. Euh, comme Abdourahim Agne ba mu fay nekk président de groupe Ousmane Ngom mu fay nekk président de groupe. des débats de haute facture. véritablement yooyu war nañ koy xool te des fois aussi il bon. boo toll benn moment parce que question man kuje laa bokk rek wala mm. minorité laa bokk rek day toll sur des questions d'enjeu national mm. yoo xam ne da ngeen war di mën di waxtaan mm-hmm. pour véritablement am ay consensus waaw mais nag boo amee Barthélémy Dias assemblée est-ce que tu peux avoir ce ce débat là <laughs> ah, par exemple ça quand même su fekkee waaw xam ne day ñëw di kii Eh, ndax xam nga xam nga eh, xam nga heureusement boobu nekkul président de l' assemblée nationale parce que doon na ko demandé moo ko amee ay ah, ah, dara malheureusement mais mais mais loolu daf ñu permettre peut être jeex na moo tax tour ndax ci yow laa nekkoon rek tour rek la ñuy def donc par rapport ak euh, président sorti bi donc ban xalaat nga ci am rek euh, ñu def bon président président def na point def na déclaration mm-hmm. laaj nañ ko ay question te dëgg-dëgg tontu na si et moi li ma si retenir mooy je n'ai senti nulle part et en aucun moment et tey boo jàngatee véritablement sa communication ah si lépp véritablement il a été au-dessus de la mêlée. Mm-hmm. aucune ouais. aucune dose de partisanerie. déjà te loolu gulet. gulet par exemple tey jii bu doon démb bu defee déclaration dina fàttali ne non donnez-moi la majorité. le président mm-hmm. qu'est-ce qu'il dit que les meilleurs gagnent. Mm-hmm. c'est ça que les meilleurs gagnent. je dis que ñeneen ñëpp fa la ñu mën a wootee te yow ji dafa lu ñu koy fàtte. palais depuis le vingt quatre euh, depuis deux avril mosoo fa dégg réunion politique de. Mhm. vraiment. Mhm. mosoo fa dégg réunion politique. les militants reçus là-bas. non c' une avancée significative. non non je parle pas de militants reçus sax. mais euh, soit c' le bureau politique. Mhm. soit c' le comité de géant. soit c' est euh, le secrétaire exécutif pour parler sur les trois derniers régimes. waaw waaw c' est ça donc et en en matière de communication dëgg dëgg dëgg il a été au-dessus de la mêlée. mêlée c'est ça. quand tu as quand on lui a posé ces questions sur les Samba Xom Doudou Ndiaye Pate Ndiaye là. Trump il a été au-dessus de la mail il a répondu. Mm-hmm. en tant que président de ah, tous les Sénégalais. c'est ça et je pense que <laughs> loolu c'est important suñu fekkee ni disséqué nañu la sans communication mais si yoon bi nga xam ne mooy la bonne foi. c'est important voilà par rapport ak euh, la sortie du président euh, très rapidement. jërëjëf euh, en tout cas dégg naa ci ay coow yu bari maa ngi maa ngi xam nga suñu nattaango journaliste sax gis naa ko sax ñu ñu posé ko question ci lu jëm ci Samba Ndiaye ba mu jur toole maa ngi dégg sax am ñuy wax ni ñuy wax ni ñoom bu fekkee ni président jëlul ndogal mu mu mu mu teggi ndomba tànk bi mu ñu ko takkal ñoom du ñu votel Pastef dégg naa ñu bari ñu wax loolu li ñuy wax lu mel noonu quoi. mais dama jàpp ni képp koo xam ni ndogal bi président jël nii du ci le cas Samba moo tax nga yow da ngay euh, bàyyi wala da ngay voter contre Pastef ça veut dire que nii nekk bi nga ci nekk dëggul loolu rek lay tekki parce que euh, ci discours président dafa am jàngat yu bari yu ñu ci mën a def. Euh, gis nga gis nga gis nga jibi président wax na ba tudd ci euh, Ousmane Sonko hmm? ni que ni moom taxaw na fii wax ni moom baale na lépp loo xam ne teg nañ ko ko n'est-ce pas mu mais dafa am benn affaire Ousmane Sonko dafa wax ni moom ki nga xam ne mooy so référence am ci wàllu politique c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafay am dama koy faral di dégg lu muy tudd le pacte de Hudaybiya sulhul Hudaybiya mm-hmm. mais jibi pacte boobu y mille quatre cents musulmans ànd ak le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam war a dugg Makka war war fa def umra am ñoo xam ne toog nañu ay at durant yoo xam ne dugguñu dugguñu ñu nam mu njaboot gi bëgg faa dem amoon force pour accéder par force ah mais les Mecquois ñu leen loolu mënul nekk pour cette année ci ci lañ si ce pacte là ñun leen année prochaine ngeen fi dugg mais pas cette année mais est-ce que xam nga ni loolu ñi gënoon a jege rek prophète sallallahu alayhi wasallam nga xam ni bu bu bu fu maanaam ñoom amuñu woon ci moom sago ku ci mel ni Omar ñoom kenn d'accord ci le prophète wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni non non dañ dañu respecté pacte bi ñu signé Omar d'accordul woon ci Alioune bi ñu ko waxee ni ko signeel bind ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni du ko mu ni mu ni man du ma du ma du ma du ma damay bañ du may effacé fo parti boobu gars ko ñun reconnaître ñu Mohammed comme le prophète bu fekkoon reconnaître nañu ko kay yëpp du am wax bindal Mohammed fils d'Abdallah ñoom ñëpp ñu mer alors qu'est-ce qui s'est bi bi loolu yëpp amee mu wax leen ñoom les musulmans ñi leen na ngeen dem leen léegi ngeen watu ngeen ngeen kii euh, ngeen kii ngeen ngeen ngeen kii gàtt nu koy waxee sax ngeen rey gàtt ñoom ñëpp ñu bañ hmm. ñëpp bañ maanaam dama lay wax rek li xew ak par rapport ak li xew ni ñëpp bañ alors qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam boobu ummi salamata sa femme daan mooy sama yaay ginnaaw mu ne ko non ñii meruñu parce que dañ laa ñàkk déggal waaye dañoo am déception rek moo tax mais ni ngay def yomb na demal nga rey sa gàtt nga watu nga dugg bàyyi leen le prophète def ko bi mu ko defee après ñoom ñëpp ku nekk dem wattu ji rey sa gàtt mais est-ce que loolu tax na ñu weddi le prophète sallallahu alayhi wasallam waaye dafa yokk sax cofeel gi ñu am ci moom hmm. moo tax le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni mu waxee nii noonu rek la mënoon waxee beneen bi mooy. d'accord beneen bi mooy nga baal ma ci côté boobu mooy. gis nga dans la vie il faut des fois aussi te mettre au-dessus de la mêlée. Bassirou Diomaye jaxaar fay d'où le président de PASTEF c'est le président de la République du Sénégal 54 pour cent ñu woteel ñeneen ñi des ñëpp mooy seen njiit alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa bi nga xam ne Kaabu ibnu ibnu Zuhayr dafa bind laa wax de saaga yonent bi sallallahu alayhi wa ay saaga yu metti mu metti la prophète sallallahu alayhi wasallam ba wax ni képp ku ko gis na ko rey maanaam nañu ko rey parce que képp ku saaga yonent bi dafa dagan ci lislaam ñu rey la ñu ñuy wër kaab ba pare ñu tegoon sax neexal daal ni képp ku ko gis sax yow di nga am neexal kaab qu'est-ce qu'il dafa dem mu mu mu mu jël ki yoo xam ni def ko ci ci ci ci bopp bi ba nga xam ni kenn du ko xàmmee mu ñëw ci as parce dafa daw na lu yàgg parce que nee na ko yonent bi mu mu muur kanam gi kenn gisu kenn xàmmeewu ko mu ne yonent bi bu la nit tooñoon ñëw baal la nooy def te fekk yonent bi saaga yi méttoon na ko xas yooyu mu ne ko xanaa ma baal ko Kaab bi dindi muuraay gi ni ko man la Kaab keroog la ko Kaab di way un biutu anna rasulallah awadani wal afu inna inda rasulillah mamulu keroog la ko di way di way di way ba le prophète bi sallallahu alayhi wasallam dafa simmi jàllaabe bi mu sol jox ko jox jox ko Kaab ibnu Zuhayr pour wax la maanaam il faut beneen bi mooy beneen bi aussi mooy fa lay waaw nga baal ma rek mooy mooy mooy le cas de Samba Ndiaye. le cas de Samba yi Samba Ndiaye dafa am rapport bu ko épinglé mais dafa am ñu nekk ci pouvoir bi xaw ma lan Bodian nu mu tudd. Waly Diouf Bodian Waly Diouf Bodian. Guy Marius Sagna. li ñu def àdduma ci. ku am kilifa du gàggantikoo ci mbedd. ku am kilifa du gàggantikoo ci mbedd. te surga bu ñàkkee fayda ci moom la ñuy jaar ba yab kilifaam. nit ñi le peuple ànd na ak ñoom ci lu ñu def parce que ñoom foofu rek la ñu mën a waxe mais ñoom bokk nañ ci ñi jege mënoon nañ ko lijjanti ci biir. Ah. te loolu ñu def mën na tax ñu yeb seen fa waaye kooku nga xam ne moom lañ fal nag aussi je pense que war nañu xoolaat farine wi parce que moom am na rapport bu ko épinglé beneen bi moom moom moom ci boppam ma jeexale foofu ji di nga ah, baal ma de moom ci boppam. Mm-hmm. xam naa tey su toogee dina rëccu lam doon def ci ginnaaw mm-hmm. moo tax gis nga politique. ak lu mën a xew loo ànd ñàkk ànd ak ñàkk ànd ak nit ki même boo koy xeex ak loo ko mën a xeex comme xamoo ëllëg luy xew na nga ko rafetal. d'accord jarul wax ju ñaaw wax ju ñaaw yam doon wax nag moo metti xolu patriote yi mais su sais ni bu tey jii bu démb doon tey du ko def te leen ma ko teg mooy war ma danaan wax ay baat yu yoo ñàkk teggin la nag wax dëgg fa la ñàkk benn teggin amul wor ma ci ki nga xam ne mooy seen seen mentor politique mooy Ousmane Sonko. moo tax nag fi may jeexale mooy li Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké waxoon rek. ñoom nañ ko bàyyi xel les politiciens mooy ku amul teggin doo teggi dara de mais ku amul yar aussi doo doo doo ku amul ku yarul aussi doo yor dara. am na solo doy. Dieuwrine Ndiaye merci beaucoup Pape Thion Dieuwrine sa xalaat par déclaration du président après ñoom ñaari invité yi ñoo jeexal moo tax. ah Diomaye ah, comme gars yi ñu ko waxee rek ak Thion ah, il était à la hauteur man Diomaye ñaari statut lay gis ci moom buy wax. statut prêtre ak imam. <laughs> comme ci école catholique yi la jàng langage bi dafa dafa dafa dafa prêtre quoi yërëm yërëmande prêtre bi hmm. comprendre que lay waxe langage boobu la yor hmm. ak ak taw tawxiitu imam bi